dal leen ak jaamu ñu ñëw ak yéen ci mbiri Souleymane fay artiste bi di wuyoo ci turu Souleymane Faye borom ta Ndiaye ay Samba booy ñoo ko dagale sàcc ay bagaasam ca avenue Bourguiba mbir yi nag mu ngi xew àllarba gi nu génn bi ay ngoon jotee moom miñ fi woowee le Bob Dylan de la musique sénégalaise Souleymane Faye ab saagam bu defoon ay document yu am solo lool waaye ay téléphone am ak xaalisam bu bëree bëri moom la ñuy yóbbu ci ak sàcc goo xamante ni amal nañ ko ca otoom ginnaaw ba mu paane foofee ca wetu avenue Bourguiba fu tolloo ak cité des eaux sacc giñ ko sacc nag metti na ko loolu ndax ay carte bancaire am ay document de voyage am ay papier yu complexe art et métier bi nga xamante ni teg na ko yooyu yëpp daf ko ñàkk ci bile vol naka la mbir mi demee dëgg-dëgg nag bu ñu sukkandikoo ci ndey mbir gi moom man Faye sacc gi ñi ko amal lu kenn nit waaye ay nit yu bare bare la ndax kat moom mu ngi fàttaliku bi xamante otom panna am na kenn ku ñëw di wax ak loolee waral ba mu jàpp ni kookee ñëwoon di wax moom moo trompé vigilance am ba am ñeneen ñu jaare ca ginnaaw ubbi otoom dal di sàcc saagam bi nga xamante ni ay papiye yu am solo mu ngi ca woon leneen loo xamante ni moom Souleymane fay alias Diégo yokk na ko ci ñi nga xamante ni ñoo ko sàcc ay nit yu ko xam la ndax kat moom nekk na nit koo xamante ni say su bu ko ay fansam woowee day taxaw saafonte ak ñoom Souleymane Faye nag xamle na ni dina te yaakaar ni géolocalisation yi nga xamante ni defoon na ko ci téléphone am dinañ ko dimbali ba mu mën a retrouver waat bagaasam yooyee ci ni mu gën a gaawee